jiital ci kàddu yooyu ay kàddu nuyoo waaye nuyoo boobu it ñu koy yëkkati ci turu suñuy kilifa yi nga xam ne ñooñu fi yabal te ki gën a jege ci ñooñu ci man te ñu tofal ma ci wetam muy le préfet du département monsieur Ibrahima Fall ki ci toppit di monsieur le gouverneur de la région Mouhamadou Moustapha Ndaw ñu teewal fii le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique monsieur Abdoulaye Daouda Diallo suñu teewaay it teew fii ci turu monsieur le premier ministre Mohamed Boun Abdallah na naka noonu ministre yi nga xam ni yëpp ñu ngi ci gouvernement waaye bu ñu teewee ñun ñëpp dañuy teew rek ci ndigalu. son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall teew fii indil ko ay kàddu nuyoo kàddu ndokkeel ci bis bi kàddu ziar waaye ay kàddu sàkku ñaan naka noonu ñu tàmbali suñu nuyoo ci sëñ Sidi Mokhtar Mbacké xalif général lu murit di ñaan suñu boroom yàggal ko fi lool te may ko wér ba naal bi nga xam ne naal na ko ngir maamam mu àggale ko ci jàmm ak salaam ko noonu suñu kàddu nuyoo ñu nuyu Serigne Saliou Afia Mbacké bi nga xam ni mooy kilifa ah, njabootuk Serigne Afia gi yëpp di ko ziar di ko ndokkeel ci bis bi di ko yóbbante nuyoo suñu kilifa yëpp ak seen ziar di nuyu njabootam gi nga xam nit ñoo ngi fii sañu ràññee ci sëñ Moustapha naka noonu it ñu nuyu kilifa yi nga xam ni ñoom lañu bokk baas bi kenn ku nekk ñu lay nuyu di la ziar dale ko si sëriñ Modou di ko nuyu di ko ziar sëriñ Fallou lay nuyu di la ziar bu baax ah Serigne Lamp Mbacké yow ñu ngi lay nuyu di la ziar ni nga ko waxee suñu xarit ah loolu it dañ ci am contentement bu baax a baax di nuyu di ziar sëñ Moustapha Doudou di ko ndokkeel it ci bis bi di seede rek balaa may tàmbali taxawaay boo xam ne am na ko ci ci dañu soññ ci bis bi. laataa lii di ñëw muy moom mu it sëñ Abdou Lahad sëriñ Saaliwu Afia moom it wax dëgg yàlla tàyyiwul di ñu soññ ci bis bi ñu ci waxtaan xamal leen ni rek administration naamte am na ci ay taxawaay yu mu def ci wàllu sécurité wàllu sante waaye xam na ni taxawaayam waroon naa ëpp lool foofu loolu it ñu ngi leen koy biral waaye li olof di wax rek yoon yemul ci benn te wax na ni ah tant sëriñ Touba tant Serigne Afia kanam la jëm kon yaakaar naa ne bu ci kanamee li jamono yi di ñëw di ngeen gën a gis ni administration bi gën naa ànd yéen gën na leen a gunge loolu it ngeen am ci njort bu rafet. dani incha allah ci yeneen xew-xew yii di ñëw ci yeneen édition yi di ñëw yi nga xam ne bu baax baax ni administration bi xam na ni xew-xew bi xew-xew bu ko ñorul yëkkati ay kàddu nuyoo ah jébbal ko monsieur le maire de la commune de Diourbel comme moom buñ ko nuyoo rek dañ jàpp ni nuyu nañu képp koo xam ne askan noonu nga njaaree naka noonu di nuyit délégation bi nga xam ni moo fi teewal soxna Aminata Tall di présidente conseil économique social et environnemental e c'est monsieur le maire Abdou jaan jiite ko moo délégation bi mu àndal yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen yóbbante suñu nuyoo ci soxna Aminata Tall di nuyut délégation bi fi teewal le DG monsieur Dame Diop. di nuyu képp koo xam ne ñëw nga fi ci tant bi ci ñëw ngir barkeelu ci bis bi nga xam ni wooteel nañ ko sëriñ Afia ah ñu dégg fi léegi ay seede si sëriñ Afia Mbàkke ci ak tolluwaayam ak saafonte ak nangoo ci sëñ bi critères yi ñu fi wax yëpp mu doon loo xam ni comme ni ko sëñ Lamp waxee léegi dafa doon loo xam dañ ko war a fësal ndax ñun ñi ay ndaw xëy na fekkewuñu lu bari waaye day jaadu kilifa yooyu ñu gën leen a fësal seeni martar ba ba ñu xam ñoom ñooy kan ndax kenn ku nekk ak ndaw lu mu ndaw ndaw waroon na bu ñu nee sëñ aafiya nga ni ah sëñ aafiya mooy diw mooy diw nii la taxawe woon nii la jàppee woon yoon wi lii la liggéey ci yoon wi ndax bu ñu fàtte ni loolu rek moo ñu mën a jariñ dañoo soxla ay mag ñoo xam ni dañuy doon ñoo xam ni dañuy topp seeni tànk rawatina mag ñoo xam ne dañoo jamono Serigne Touba bokk ak moom ci wàllu deret waaye doon ay taalibeem nangul ko ànd ak moom ci liggéey bi mu doon liggéey kon ñooñu ay référence lañu yoo xam ne dañ leen a wane wane bu baax a baax a baax wane boobu nag ñi ci jiitu mooy ak njabootam. sëñ bi wax na ko ak njabootam ñoom lañuy xaar ñu wane moom mooy kan ba ñun ñëpp kenn bañ a réere sëriñ Afia ak doy ak ak ak nekkim waaye aussi ni mu mette woon fii ci diwaan ndax jiite sëriñ Touba rek yaakaar naa doyoon na ci wane kooku mooy kan te sëñ bi wax na ko léegi sëñ Touba ñëw teg ko ci kanam mu doon sa imaam mu nangu nga koy jiite kon kooku rek doyoon na ci référence doyoon na ñu xam kooku moom mooy kan adduna dafa toll foo xam ni nit ñi dañoo toll foo xam dañuy am lu ñuy jiiñ diine lislaam ñun Sénégal ñu am loo xam ni dañ ko war a ndamoo wan ko wane fu ne muy l'islam confrérique bi ñu am ñu gis yoonu murit ni mu taxawee ni mu jëmmale lislaam googu ni mu ko taxawale fii waaye ni mu ko taxawale bitim réew mais dafa war a nekk fierté ci bépp doomu Sénégal foo dem nga wane ni man mii ab murit laa ndax taxawaay bi nga xam ni sëriñ Touba wane na ko ci àdduna loolu daf yow dañ ko war a fësal war a fësalit ni taxawaay bi nga xam ni Serigne Touba taxawoon na ko ci àdduna ah taxawaayu jàmm ak salaam dong la ndax it Serigne Touba li ko tubaab bi def yëpp sa teewul bañ ba mu agsee li mu njëkk wax mooy jéggal na leen ci lépp loo xam ne defoon nañ ko. loolu jar fësal jar nay fësal ci lépp loo xam ñu ngi koy jiin diine lislaam fi mu toll nii ñu xam ne kooku ah xaw ma kuy wax lislaam bay wax lislaam leneen lu dul jàmm waaye kooku moom lislaam jàmm gi ko doon moom lu mu fësaloon la lu mu waneloon la lu mu doxe woon la loolu dafa jaadu ñun ñu koy doxal ñu koy fësal ndax it exemple la ci àdduna exemple la ci yoonu lislaam fu mu toll ñun waruñoo naw benn dëkk dama koy wax ni tey jii lislaam bi senegaal am ak dëkk boo mënti dem ci àdduna bi ah ñun waruñoo naw ñooñu ci wàllu jaamu suñu boroom topp ay ndigalam ay tereem waaye ak bëgg ak gëm gu ñu gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ndax dañoo am mag ñoo xam ne dañoo wane loo xam ni yaakaar naa ne boo doon wër àdduna ndar képp doo ko gis fenn fu fii rawatina fii ci Njaaréem. ndax nee nañ lépp fii la kon ñun nag ñun ñoo war a defaraat suñuy toogaay xoolaat suñu doxarin war nañoo fexe ba lépp lu ñuy dox kàddu bu ñu yëkkati ñu ràññee gis ñi kii kat ab taalibe Serigne Touba ci doxin ci taxawaay ci jëfin loolu war na rawti nag fii ci diwaanu njaareem ji nga xam ne moom lañu nekk ngeen baal ma rek ndaxit bu amee lu am sa ñun ñu am lu ñu dénk ngeen féeta ñu fenn doon suñu yaakaaru tey ak ëllëg bu ñu njaboot gi bëggee jaaxal dañuy daw ci yéen waaw dañuy daw ci yéen xam nañ bu ngeen waxee njaboot gi ñu dégg njaareem ñëpp xam ni rawatina kër gu mag ah bu dee ay kilifa ay wéeruwaay rek macha allah am na fi ba mu doy sëkk. bu dee fu waay jaaxle am fu mu ko diisoo ngir mu àgg fa mu war a àgg am na fi ba sëkk kon ñuy bàyyi xel ci loolu ñun njaboot yi bu ñu jógatee ba dara am lu ñu metti bañ nar a jóg am lu ñuy dox nañu njëkke suñuy kilifa muy kilifa diine yi waxtaan ak ñoom ndax bu ñu waxtaanee ñoom xam naa ne am na lu bari lu ñu naroon ñoom dinañ wàcce ba ñu dal li ci des ñoom dinañ ko dox ba mu sotteeg jàmm loolu ñu bàyyi ci xel bàyyi ci ñun nga xam ne ñooy njaboot ji ndax li xew barki démb fii ci tali bi bu ñu fàtte lii suñu alal la alalu buur amul sama alal moo am kenn ku nekk mën naa sañ ni tali bi sama alal la ndax li ko fi def dërëm bu ci buur def jàppal ni sama fistine ma nga fa ndax sama dërëm la sab dërëm sab dërëm sama dërëm ñun ñëpp ñu boole ko def ko fii loo ci wàqi nag loo ci yàq jàppal ni yàqaloo kenn ku dul sa bopp ki war a defar nag warta yàq rawatina foo xam ne nag ah dañu jàpp ni référence la waaye kilifa gi ko sanc bu dee jéggale rek moo ko dàkkoon ci àdduna bi bu dee maslaa moo ko fi dàkkoon sa ñëpp xam na ni ah, li mu teg du luy fay luy jëm ca kanam dong la kon kookit it nañ koy bàyyi xel bu baax buñ naree jugati ba doxee yenn doxin yi nañ ci bàyyi xel ñun waa njaareem dañu ameel sëñ bi lu baree bari njukkal bu bari man dama naan ku génn ñun la foo bawoo ñun la njaareem rek ña fa ña nga fekk war nañoo gis ci yow akuk taalibe akuk bëgg sëriñ Touba akuk doxalin li nga xam ne sëriñ Touba moom la santaane loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ndax lool it mooy doole dëkk bi moo ñuy dooleel waaye kilifa yi nga xam ni ñooñu nekkal fii loolu aussi mooy seen sac ñu bàyyi ci xel dañ ko ñaanal bu ëllëgee yu mel noonu ñuy waxtaan ci kilifay ndax lépp loo xam ne war na ci gëm naa ni bu toqee seen nopp incha allah dina saafara ah naka noonu bis biit comme ni ma ko waxoon léegi ah liñ fi dégg tey macha allah kontaan nañ ci lool ndax liit mooy àdduna lii mooy yoonu murit saafonte waxante dëgg indi ak mbokkoo waaye teg ñu it ci yoonu siraatal mustaqim sëñ bi loolu la digle ah loolu it gis nañ ko fii ci tànt bi kon ñun dañuy am mbégte lool teew fii ah waaye gëm naa ni mbégte gu ñu am ñun ñu fi teew suñuy kilifa it am na mbégte gu ñuy raw ndax xam naa ni bu ñu leen àggalee lii ñu fi gis fii ñoom diñu bu ñu bégee benn it diñu bég lu ko ëpp loolu moom ngeen xam ni. ñun kontaan nañu bu baax a baax a baax fii suñu teewaat ci fii waaye comme ni ma ko waxee nañu fësalaat bu baax a baax a baax sëñ bi wanaat ko bu baax a baax ndaw ñi surtout ñun ndaw ñi ñi xam ñi nga xam ni dañoo bokkoon ak sëriñ bi ànd ak moom waaye doon ko liggéeyal ñu gën leen a xam ba na tax bu ëllëgee ñun dañu gën a xam nan la ñuy doxale ak ñooñu waaye fu ñu leen déggit dañu gën a xam nan la ñu war a mën a saafoonteeg ñoom nan la ñu war a mën leen a jox seen dayo loolu dina ci am solo bu baax a baax ndax loolu it rek lañu am fii ci daaray Dunya fësal ñooñu day baax ci ñun ndax njaboot ji bu subaa ñoom lañ yaakaar ëllëg sa bu ñu xoolee ci ñooñu gëm naa ni yoon wi tegu yoonu siraatal mustaqim na dong lay doon sëriñ bi kàddu ci tegu kàddu ziar la ndokkeel leen ci bés bi waaye ziar leen yow ni leen ziar monsieur le président de la république ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom la njaboote ah xamal leen it lii moom rek la ñu sant xëy na moo mënta teew fu ne waaye ñun ñii di ay ndaw fépp foo xam ne ah yëkkati nañ fa rawatina ci yoon murit jaadu dañu teew fa yëkkati ko fa ay kàddu xamal leen ni bëgg na bu baax a baax ci ni ngeen koy jàppale waaye bëgg na bu baax a baax ci ni ngeen yaree njaboot ci ah di leen nit gannaaw kàddu ziar yooyu ak ndokkeel yooyu ngeen ñaanal ko ngeen ñaanal ko ñoo ko dénk réew mi xam na ko yan bu diis la waaye xam na bu ngeen ko téyelee bu ngeen ko téeñee ah dina woyof lool moom lii nga xam ne sumb na ko mu ay projets yi mag ca lenn rek tax koo jóg nag lu dul Sénégal ñi dégg ko fi ñu déggee dëkk yu mag yi waaye lépp it ah ñu xam nit ñun dañoo am lu ñu gëm am fu ñu bokkit lool it lépp lu ñuy defit ñu fësal ko ci ngeen ñaanal ko ci projet yi mu teg yëpp suñu borom kàttanal ko ba projet yi ak sama mu doon njariñu Sénégal bi yëpp ñaanalu kit alhamdulilah nawet bi macha allah waaye li ci des muy ci góob beeg yëpp suñu borom yàlla nañ ci defal jàmm ni mu amee boobu ba léegi suñu borom kattanal it ba loolu it li ci des yëpp ñu góob ci jàmm ak salaam nit ñuy am ci mbay mu macha allah suñu muur loo ko mu jig ñu jig suñu réew. Euh, ñaanalit réew mi suñu borom gën fee dolli jàmm ak salaam ah jàmm joojit mu law ba ci réew yu ñu wër waaye law ba ci monde islamique bi yëpp ne àdduna bi yëpp sax euh, ñaanalit monsieur le maire ndax it ndénkaane dafa diis li ko waa njaareem yan muy moom muy Abdou Diagne muy yeneen meer yi fi nekk yëpp muy la président du conseil départemental kóolute gi waa njaareem am ba dénk leen ah suñu borom kàttanal leen ba lool it ñu liggéey ci liggéey bu am solo ba waa njaareem yëpp bég ci ñoom lan doon xaar ñi ñoom ñu am lu wees seen jot waaye ñaanal it administration bi nga xam ni ñoom la fi monsieur le président de la république envoyé waaye ñoo ko nekkal fii ci njaareem suñu borom doole leen ba lépp loo xam ne ah digal nañ leen ko ci seen wàllu liggéey suñu bokkoog yéen ñu liggéey ko ba yéen surtout yéen askan wi waaye yéen yi nga xam ne yéenay sëriñ si ngeen bëgg ci ñun bëgg ci suñu liggéey gëm naa ne bu ngeen bëggee ci ñun bëgg suñu liggéey suñuy njiit ñu ñi fi yabal dinañ bëgg ci ñun te loolu it boobaa suñu si njaareem dong lay doon ñaanal it ñaanal suñu njaboot ñox buñ fi nekkee ñu nekk suñu njaboot ñoo fi nekk ñaanal képp doomu njaare bépp koo xam ni yaa ngi nekk euh, jullit waaye bépp koo xam ni doomu aadama nga suñu borom kàttanal la ba lépp loo xam ni tawat la waaye yitte la joo xam ne loo nga ko suñu borom saafaraal la ko ci taw waaye loo xam ne bëgg nga ko suñu borom defal la ko sama doon loo xam ne ci yoonu siraatal mustaqiim ne dong lay nekk sëriñ bi kontaan nañ bu baax a baax kàddu yooyu mooy kàddu yi nga xam ne su may kilifa yónni woon nañ ma ko ñu yooyu ko barkeeloo ko ci bis bi waaye di leen ne ah édition yi di ñëw incha allahu rabbi ah suñu taxawaay di ngeen ko gën a gis waaye li fi am as néew kontaan nañ ci fàtte bu leen ñaanalit ñi nga xam ne ñooy service de sécurité yi muy sapeur pompier muy police muy euh, ñi nga xam ne aussi moom mooy croix rouge ndax it ñoom it daa am taxawaay boo xam ne toujours dañ leen koy kii dañu nekk ci naaj bi bu ñu nekkee ci kër gi di taxaw taxawaay bu am solo ngeen tam ngeen ñaanal leen bu baax a baax seen taxawaay gën a ñu gën a am doole suñu borom gën leen a dooleel ba taxawaay bu ñu mën tey ñu mën du ko raw ëllëg en tout sëñ bi kontaan nañu ngeen waxoon ñu sëñ bi bu baax ñu ko kontaan nañu suñu teewaay si fii ah tàllal nañ suñu loxo daal ngeen ñaanal ñu daanal diwaanu njaareem gépp ba njaareem yokk ba yokk ci Sénégal ba fépp foo toll rek ñu naan njaareem ca kaw sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil bokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu ci kàddu ku tedd ku kawe ku yàlla jox yim ko war a jox yépp muy suñu maam sëriñ Saalixu Mbàkke ñu toogee jataayu sëriñ Aafiya Mbàkke Ahmadul Muxtaar xanaa rekk bala ñuy yëkkati kàddoom ñu jéggulu suñu kilifay bopp yi ñu feggool te ñu bokk ñoom jataay bi di ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadal Fadal suñu wayjur moom suñu maam sëriñ Abdul Akaram Mbàkke ñëw ci sama sëriñ sama xarit sama kilifa sëriñ Modou di wax na jataay bi xay na dangeen ñu ko jéggal bëgg na woon yëkkati kàddu te ngeen nekk fi lii monsieur le maire mi ma feggool wax sàng ne mi ngi jéggulu jataay bi ki mu représenté moo toll noonu ma maa ngi sof fi mu daanele ci kàddu googu di leen jéggulu jataay bi di wax ne sëriñ Saalihu mu tedd mi ci biir kër gi moo waxoon ne liggéey bu sell bii ñu doon def te sëti sëriñ Aafiya Mbàkke taxawal ko di fàttaliku seen maam ju baax ji ci ay ñaan di ko fàttaliku ci ay jëf di ko fàttaliku ci ay melokaan ginnaaw bi ñu ko tegee ci ponk yi ñu baaxoo teg bisu diine bu ne te mooy xëy jàng alxuraan lu yaatu ñaanal ko ci te loolu tàmbali nañu ko bi weer wi teroo nga xam ne wax nañu ne li gën a néew ci lim bi ñu ko jàngal ci alxuraan mat na téeméeri kaamil ak juróom-ñaari kaamil muy 107 ci suba ba léegi ñu gungee ko alxuraan gungewaat ko xasaayit yu bari yu ñu fi durus ak bernde yi nga xam ni ci suba ba léegi dakkut mu bel ni bernde nag ñaari xeeti bernde dafa am bernde boo xam ne mbusoobe yi ak ndaw kundaa yi moom lañ leen di berndeel waaye ak bernde yoo xam ne ñu mel ni ñoom Serigne Modou moom lañ leen di berndeel muy berndeel leen ci seen wàllu ruux sëriñ bi wax nag ne bu ñu dikkee ba toll ci ñetteelu xaaj bi nañu yëkkati kàddu ci turam santal ko ñetti xeet yi fi daje benn bi mooy ñi jàpp na dañoo ñëw ngir dimbali sëriñ bi ginnaaw bi ñu doonee sëriñ bi doon ak moom benn ba noppi ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ci wàllu àdduna muy autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñetteelu xaaj bi mooy njabooti boppam di ay doomam ak rakkam Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne Afia waaye nag ak taalibe yi nga xam ne lépp ñoom la ndax bu ñu wax Serigne dafa fekk ñu wax taalibe ba nuppi ci ñii rekk la sëriñ bi waxoon ne nañu leen sant mu mel ni ñooñu nag bu ñu tàmbalee ci préfet préfet defe naa ne yow ni ko defe naa sëñ làmp moo la njëkk a wax léegi ci yow waaye wax ji rek mooy murtalaay mi feddli na ko miin nga barab bi kero bi sayaar ndaw demee ndaje mi ñu njëkk a daje dama ko ne ki la wuutu mel na ni jàngal nga ko ba mu mokkal sayar sëñ Modou daanaka ustaas la ko tudde woon mais macha allah yow yàlla yàlla lafal cat waaye xanaa di wax rek njaboot yi nga xam ne ñoo doonoon daayira bi doon saytu liggéey bi di leen wax ne monsieur le préfet Alsane Cissé ak kilifaam préfet département di Ibrahima Fall ñu yittewoo mbiru diine lañ léppi diine rekk yitteel na leen waaye bis bii bokk na ci bis yi leen gën a yitteel dafa fekk ne li mu wax ne wolof nee na bu yoon jeexul waaxu du sil du jeex amoon nañu yéene yi def lépp lii may wax itam defe naa ne ñi ñuy fekk si ci dëkk bi ñuy organiser ku ne ci ñoom xam na ne ñi fi nekkoon népp jàmbaar lañu waaye Ibrahima Fall. yitte ji mu jox li muy liggéey ci bisi diine yi ñi fi àggoon bariwut kon ñu leen di wax ne préfet ni mu ko waxee lépp lu manqué ci bis bi du yéeneem waaye sëriñ bi xamee na ko nu raw loolu ngeen yéene mu am nee na mboolem seen xeeti yéene àgg na ni la ko ni la ko sëñ làmp waxe du ma ne ñoo ko waroon a wax mais dañoo dañ cee war a jaaraat ñu nit sëriñ bi nee na li ko dale ci yow mi ñëw jaar ci sa kilifa bopp préfet Ibrahima Fall jaar ci gouverneur Moustapha Ndaw jaar ca ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo di wéy ba ca Mohamed Boun Abdallah Dionne Mohamed Boun Abdallah Dionne premier ministre ba ca son excellence président de la makisal Macky sëriñ bi nee na mi ngi joyal cantam ak ngërëmam ak ñaanam ak i taxawoom ci yéen li ñu wóolu ba dénk ko yàlla na leen ci suñu borom sàng sutura ba li nit ñi doon yaakaar ci yéen lépp ngeen réussir ko deux cent cent yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ndax loolu mooy njëriñul réew mi te ñun ñoo dajale woon suñuy carte fal leen wóolu leen kon nag li ñu war mooy wax leen dëgg ak ñaax leen ak ñaanal leen bu ñu jógee ci préfet lu manque ci wax ji ci nun ñi wax la manqué waaye Serigne Saliou lépp loo xalaat te mu mat baax rek wax na ko buñ ci jógee ñu ñëw ci kër gi nga xam ne ci doxalinu àdduna fi la ñuy liggéeyale sëriñ bi ci wàllu administration muy kër gi ñuy wax conseil économique et social environnemental te soxna Aminata Tall jiite ko ñu yebal délégation boo xam ne dañoo wax ne man ci laa bokk dëgg la ndax bu jotaay bi dem wutoon nii mu demee man maa koy jiite kon ñoom it sëriñ bi mu ngi leen di delloo njukkal monsieur le maire Abdou Diagne ni nga ko waxee taalibe nga ci kër gi waaye cër bi nga am itam suñu borom moo la ko jox su ma ñëwee ci turu njaboot gi sëriñ bi di wax li li sëriñ bi waxtaane ak njabootu boppam su ma agsee ci sëriñ Moustapha dina am lu ma ci leeral tuuti waaye kon nee na mi ngi delloo soxna Aminta njukkal di ko ñaanal moom it di ko gërëm di ko wax ne lépp lu mu def ci bisu sëriñ Afiya Mbàkke lislaam bépp la ko defal sant na ko gërëm na ko mi ngi rafet lu taxawaayam mi ngi rafet lu jëfam lépp lu ñu yëngal ci dëkk bi ni ko Mourtala waxe léegi ku bëgg dëkk bi la ku bàyyi xel njaareem la ba ci jotaay bi ñu mujj am bërki démb feddiliwaat na ko ci kon mi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal itam li ñu ko dénk mu am ci lu kawe njortam ak yéen ñi nga xam ne yéen waaye bu ñu jógee ci foofu ñu ñëw ci monsieur le maire Malick Fall monsieur sëriñ bi nee na mi ngi lay sant sëriñ bi nee na mi ngi lay gërëm sëriñ bi nee na mi ngi lay ñaanal lii ñu la dénk muy njaareem te duñu wax ne dëkk bu jafee defar la ndax lu ne nit a koy defar waaye mu ngi lay ñaanal di ñaan itam nii ñuy waxe fu ñu waxee tudd la galan nga am ndam yu ëpp yam amoon ba ca Jacques Baudin yam amoon ba ca Soxna Amina Tall ba ca yëpp yooyu nga am si totale ndax loolu moo nuy jariñ ñu ñu waa njaareem ndax te yaa nekk ci bopp dëkk bi bu ci jógee itam sëriñ bi mi ngi sant délégation directeur général Dame Diop te Baye Ndiaga Diop rakkam jiite ko di ko ñaanal li mu ñaanal moom it ñii fi jiitu am tawfeex ba li ñu ko dénk lépp mu saytu ko ni mu ko bëgg saytoo ba yóbbu ko fi mu ko bëgg a yóbbu bala ñoo ñëw ci njaboot gi ñu mel ni waa sapeur nga xam ne bokk na ci farlu monsieur le préfet bi ñu xëyee ci suba ba léegi ñu ngi fi li leen war lépp ñu ngi fi polis ñu ngi ci sécurité bi ñoom it li leen war lépp ci suba ba léegi ñu ngi fi croix ñu ngi fi. télévision yi ñu fi ñëw ñëpp gis nañu leen rajo yi gis nañu ñëpp sëriñ bi nee na mu ngi leen di ameel cant ak ngërëm akuk ñaan ba kenn ku ne ci yéen waar wa nga féete di fa liggéey nga am fa ndam loo xam ne kenn mësu fa am ndam lu ni toll bu loolu jàllee nag sëriñ bi dafa waxoon ne dafa bëgg a jëmale ak cant ak ngërëm ak soññee ci bokki boppam tàmbalee ko ci jëwrinam sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Aafiya ñëw nag ci mbooleem ñi mu bokkal sëriñ Aafiya tàmbalee ca bopp ba sëriñ Modou Farmata sëriñ Basiru mi ko fi nekkal ak njabootu sëriñ Modou Farmata gépp ñépp a ngi ci biir waaye ñëw ci njabootu suñu maam di suñu sëriñ di kenn ci ñun di sëriñ Muhammadul Xaasim xëy na mën naa am dara nekkut ci ñun waaye jàpp nañ ne nag lu ne ci nun moom la te tey jii sëriñ xaasim sëriñ abdul baax yi nekk ca bopp njaboot ga ak kër ga yépp waaye ñu ñëw ci njabootu sëriñ abdul akram suñu maam te sëriñ Mustafaa am sëriñ abdul akram nekk ca bopp ba te moomut te moom it suñu daaneelee lii ñuy wax procès yii sëriñ bi songu naal ko mu teg ko ci loxoom mu nekk jëwriñu liggéey bi waaye ñu ñëw ci njabootu sëriñ Abdul Rahman moom sëriñ Afiya te ci njaboot ga sëriñ Afiya ak sëriñ Xaasim ak njaboot gi yépp sëriñ Afia nekk ca bopp ba sëriñ xaalis bi ak njaboot gi yëpp ñoomi nekk ci biir waaye ci njabootu sëriñ Ibrahima sëriñ maam sëriñ nekk ca bopp ba ak njabootu sëriñ Ibrahima gépp sëriñ Abdul Aziz sëriñ Mohamed nekk ca bopp ba ak njaboot gi yëpp sëriñ Modou Abdoulahi mi nga xam ne waxtu wi daaw ndigal yi ñu nekk moo ko doon joxe te sëriñ Abdou Mbacke nekk ca bopp ba ak. sëriñ moodu mbàkke te mu siyee woon ci sëriñ Modou Oumy Diakhaté te sëriñ Moustapha Mbacke nekk ca bopp ba ak suñu maam sëriñ Modou Halim ba tey sëriñ Moustapha nekk ca bopp ba ñii mu tudd ñépp nag ma ne ñii mu tudd ñépp nag sëriñ Abdou Latif mi ngi ci biir ñu ñu tudd te bàyyi sëriñ Cheikh di suñu xaritu bopp moom it nekk ca bopp ba ak njaboot gi yëpp sëriñ Saliou wax ne li tax mu waxe ne nañu jaar ci seen tur dafa bëgg ngeen xam ne mooy njabootu bopp yéenay yéenay njabootu boppam te nit amut lu may njabootam te ku ne ci nit ñi bu fekkee ne nit nga la nga am képp nga war a waaje mu yónnee ci yéen cant di yónnee ci yéen ngërëm waaye di leen ñaaxaati itam di leen wax ne dara ñoru ko lu may borom bi tabaraka wa dara ñoru ko moom sëriñ Saaliw lu may sëriñ Tuubaa waaye dara ñoru ko lu may ñaar yi ma lim yépp mu jaare ko ci biir Cheikh Afia Mbàkke imaam ba liggéey ci lu ci kenn mësta liggéey moo tax suñu maam ju baax ji nga xam ne macha allah lu ne def na ko fi di sëriñ Gédé Mbàkke ki démb rek amoon yéene ci bis bi ba àgg ci lool moom it sëriñ bi mu ngi fàttali njabootam sëriñ Modou di wax nag ne donte juum nañu ci lim baa ñu fàtte du sëriñ Saliou xay na kenn ci njaboot gi ku ñu jéem a wuutal ci place bu mu feesul moo waral njuumte loolu waaye sëriñ bi neen la dale ca sëriñ Modou Farmata ba ci sëriñ Moustapha moom seriñ Afiya foofu fi njaboot nekk ci diggante bi ñoom lay jébbalaat boppam ci ni nit war a ànde ak njabootam di waxtaanante ak yéen ci ni nit war a kilifaam di wax ne nit itam ginnaaw bi mu gëmee yàlla dafa war a gëm boppam bàyyi ko xel looloo tax naal yii fi kilifaam yi naaloon tàmbale ca sëriñ xaasim wala ca sëñ Modou Farmata ba ci sëriñ xaasim xam ngeen ne liggéey bi ñu yëkkoon def ci kër gi ginnaaw seng ya am na ci loolu moo ko defoon euh, sëriñ Abdul Akram xam ngeen ne bâtiment bii ngeen di jàkkaarlool moo ko taxawaloon sëriñ Gere bi mu fi ñëwee daf fee sax dàq di sëriñ Afiya di fi yeewoo guddi bëccëg yi war a sax ci kër gi yépp mu saxal ko nekk ci biir kër gi macha allah dara manqué wul waaye sëriñ Modou Abdoulaye itam bi mu ñëwee la yëfee gàtt gàtt yéeneem fees na dell ba lii mu fi def itam seen bët tege na ci sëriñ Saliou nag xam ne ku mu mën a doon ci nit ñi lu dara jaam bari bari montre bi mu takk ci loxo càmmoñam walla mu wékk ko ci néegam jàkkaarloog moom bu ñu nee faatu na moom jëmm ji montre ba du taxaw lool nag li muy tegtale lu nit rëy rëy ci nit ñi bu faatoo di tere àdduna wéy di dox ginnaaw àdduna dafa war a wéy di dox nag ñi fi nekk dañoo war a ànd ak moom di dox mu wowoon leen ci liggéeyu kër seen maam seen sëriñ sëriñ Afia ngeen ñëw def ci macha allah lu sedd xolam mu tegoon li tegoon liggéey bi ci loxo sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Akram loola itam nekk lu rafet nekk lu jot ba ku yàlla dogal nga dugg ci kër gi tey da nga yëg ne loola sëriñ bi bëggoon ni mébétam sori na bu baax a baax noonu ngeen defee loolu mu bëggoon nag la fas yéene ngeen wëlbatiku gën a bennoowaat ci li ko yàlla sédde nii jàppoowaat di xàccandoo di dóorandoo di jàppandoo di bàyyandoo su ko defee lépp lu ngeen song da ngeen ko yóbbu fa ngeen ko bëgg a yóbbu bu sëriñ bi jóge ci loolu mi ngi sant taalibe bi te su waxee taalibe mi mooy taalibe sëriñ tubaay yépp ndax sëriñ su ñu koy wax taalibee tax ñu di ko wax bu taalibee amul sëriñ du mën a am sëriñ bi nag muy wàcce kàddoom rek ci li sëriñ tubaa waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala borom bi tabaraka wa taala jariñ nga ma defar nga ma dimbale nga ma sama lépp mat na dama bëgg nag nga jariñ ci man defar ci man dimbale ci man sama mbokk yu góor yi ak yu jigéen yi te li ñuy tudde noonoo wuute xalaat waxante lu jagut nga dinde ko ci suñu diggante mooy nafaatana fanfa bi al ixwaana wal axawaati wak fi na al mu mel ni bu doon keneen mënoon naa defaru yóbbu ko feneen taalibe yi nag la sëñ bi waxoon rekk la leen sëriñ Saaliw di wax muy benn jataay bi bi mu dajalee bokk yi dajale taalibe yi taalibe yi moytu leen ma ci sama bokk yii ndax ñoom amuñu lu may man bokk yi te moytu leen ma ci taalibe yi ndax ñoom amuñu lu may man mu mel ni ki doon wax ci kàddu daaru salaam junj na ko muy qualité nit ak faydaam nit su ci boppam génnee rek daanaka dara dootu ca des kon nag ginnaaw li gën nekk njariñ ci nit ki mooy mu xam boppam jàpp boppam téye boppam xam ne bu bu bu amutu taalibe du mën a nekk sëriñ waaye bu népp tuub sëriñ du mën a amul taalibe ci diggante boobu la liggéey bi nekk kon sëriñ bi ci gàttal sant na ñëpp gërëm na ñëpp mu mel ni nag fi may daanale ci jëwriñu liggéey bi sëñ Modou ngeen baal ma ñaari baat muy sëñ Moustapha ndax xam naa bu fi nekkoon mooy jël kàddu gi xam ngeen yëf ni mu demee Abdou mi li taxoon ma ne ko su ma ci agsee dinaa ci leeral tuuti loo xam ne mën naa am lu muy leeral dama teewee bi muy def politique sëñ bi teg ko lu ne daa dal ci kawam su ne bërit bëgg dem mu tere ko ba élection yi nga xam ne ci la nekk maire mu woo ko ba mu ñëw ne ko mat na jot na am nañ yaakaar ci demal boo demee yàlla mën naa defal ndam loolu moom maa ko tawee kenn nettaliwu ko kon moom defe naa ne xëy na xam na sëriñam loolu rek laa ci doon sof kon defe naa kàddu gi xaw na mën a wàcc foofu di sant ñëpp di gërëm ñépp di wax ne bu jubee te rafet te mat sëriñ bi la muy sëriñ Saalihu ak njabootam yi fi des waaye su manqué baa mu am lenn lu ci des nun la kon daayira bi itam sëriñ bi sant leen gërëm na leen gis na ni ngeen taxawoo seen maam lu ngeen man ren yàlla na ngeen man lu ko ëpp fuuf déwén at ma ca topp itam yàlla na ngeen mën lu ko lii ngeen def naaw na lépp xeebu ci dara wóor na ko ne su ngeen ko defaatee déwén ca lay dàqe su ngeen ko defaatee ca lay dàqe su ngeen ko defaatee bis bi dana dem fekki moroomi bisam yépp kon mën nañ cee wax rek ne daayira bii ñu gis nga xam ne ñu baal ma ndax samay kilifa dañ cee nekk ñooy ñi gën ndawe ci sët ñi ñoo taxawal lii kër sëñ Afe bu taxawee dana romb mbooleem xeeti bis yi ngeen di dégg yépp ak bis bu mën a doon ci bis yi rek mate nañ ko kàttan xam-xam communication relation dara du manqué kon loolu monsieur le ngeen xamee ko noonu ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñépp bàyyinu fi te bu ëllëgee ñu war a ànd ak moom jóge fi te loolu ñu bàyyi xel ne ku ne ci nun am na ñaari malaayika yoo xam ne ñu ngi ci mbaggam yii di ko contrôler contrôle boo xam ne bu ëllëgee su ñëwee ba jàkkarloo ak boroomam dañuy génn dossier ba ne ko ko bëcc ne ko jàngal kero tëlee wax du am ñàkk a mën gis du am ñàkk a mën a jàng du am kon bu ñu alquran waxee ne wa insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi wa nuxriju lahu yowma alxiyaama kitaaban manshura am na ñaari malaaka yu nekk suñ mbagg yii yoo xam ne ñu ngi bind ku ne ci nun li muy jëf su ëllëgee dañuy génne mbind ma nekk ko bëcc ne ko liiral te ku ñu ne iqra kitaabaka ku mën a doon ci nit ñi tëlee jàng du am keroog muuma ñu ñu baal ma ci waxin wi dañuy wax silmaxa dañuy gis keroog ñépp danañ jàng li ñu doon jëf seen bi waxaat ne borom bi nee na bu lëndëmoon ba àgg ci wax seen yu gën a tar su fepp bàyyi ko woon ci kaw di daanu ci suuf yàlla mi ngi koy gis waaye nee na am na lu gën a sew loolu te gën a jege man yàlla maa ngi koy gis mooy Moustapha Mbacke bu jàkkaarloog Mourtala gi bëgg a wax ci monsieur le préfet wala sëñ Moustapha mi wala ci kilifa yu baax yee kenn te ñun ñaar ñu am langage bu ñu mën a waxante la lañuy nëbbu ci suñuy bët ci wor yàlla nee na xam naa loolu ñu ne ko daa ni xam-xam bi foofu la yem mu ne. xam naa lu gën a jan loo xam ne génn ba agsi ci bët yaalamu xaainatal ayun wa maa tux fii sudur yàlla nee na li ne nëbbu ci dënn yi jotul a génn bay agsi fii di raf-rafi ñu man cee tër plan man cee tukkal àdduna yàlla nee njëkk muy génn fii ba agsi fii man xam naa ko ku mel ni kooku nag ku mu inspecté ëllëg jàpp na dana yomb ci yow ginnaaw nag soññee la ci kàddug sëriñ bi ñu xam ne lii mooy li ñu boole woon ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye lii mooy li boole woon Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak Nabil Moustapha sallallahu alayhi wa lii ñu boole nag suñu borom bu ne wa ma rabbuka bi zalaamin lil abid duma tooñ kenn bu ëllëgee ku ne ci yéen wa an laysa insaan ila ma ku ne la nga jëf ñu ma tegal la fii moom nga am wa an sa'yuhu sawfa yura daa ñu ne monsieur le maire keroog bi ñuy wax bi ñuy taxawal bis boo xam ne ñu ngi ci doon fàttaliku bis bi gën ci bis yi ndax sëriñ Afia bis bi ñu koy fàttalikoo mooy bis bi Seydina Mohamed mujj jëflante ak Abu Bakrin Siddiq mu joxe tegtal ci moom ba mu wuutu ko xalifa bis boobu lañuy fàttaliku Sëriñ Afia ndax li tax mu ne ma ne moom lañ koy fàttaliku bis bi Seydina Mohamed mujj di julli fekk mi ngi ci tawet ji mënatul dem mu daanu xëcc Abu Bakrin Siddiq mu wuutu ko ca ñetteelu fan ba ci la mbiram jeex ci saayir ba ñu indi tegtal ya tegtal boobu bokk na ci li tax Abu Bakrin mën a taxaw ci kanam sëriñ Afiya itam sëñ Cheikh Fatak Diop la sëriñ Touba woo ne ko wool ma Afiya loolu mi ngi xew ci altine ji bi mu ko wooyee mu ñëw mu ne ko dénk naa la julli waxtu yi juróom ak gàmmu yi te xam ngeen ne loolu bu génnee ci diina dara desu ca dénk naa la julli juróom ak gàmm yi te loolu bu génn ci diina dara desu ci bi mu ko ko waxee ci altine ji diggaatuñu yëngoom ba ca àllarba ji ci lañ ko nemmeeku fekk mbir mi mat wala boog li gën leer ci taarix mooy bés biñ ko ko mujj wax ca ñetteelu fan ba la Cheikh Mahamadou Moustapha bàyyi koo ñaaxeen noonee ñu koy nettalee ak si yëglu di nuyoo ba agsi xam ne ku tedd gi gën naa jege boromam kon moom la sëriñ bi mujj jëflanteel waaye moom la mujj waxal te lam ko doon dénk moo jaamu yàlla ah loolu nag yeneen mbir la ba mu xewee ca màkk noonu la deme woon bi mu xewee ci mbàkk itam nii la deme loo wet googu foofu lañ ci yem waaye ku yàlla jox jëwriñ jooju nag nga xam ne li gën a doywaan ci xam sa bopp gi ñu doon wax léegi jiite gi mu njëkk a jiite Serigne Touba mag nett le ma ko li ko indi mooy julli dafa jot baaxoo woon nañu bu ñu noddee Serigne bi génn jiite ñu noddu sëriñ bi génnul moxtaar mi dem ba àgg ci cate ba àgg ci lool ba daruri bi bëgg dugg ahmadul muxtaar sëriñ afiyu jóg def li ko sharia digal li xam kabar di julli mag ña fa nekkoon ñépp dañu ne ñoom duñ jóg dañuy xaar ku tedd gi ñu ngi xaar nag ku mat a xaar waaye ni muy àtte bu ñëwee ci la mbir mi nekk Cheikh Ahmadou Bamba dafa jékki-jékki ñëw nekk ci ginnaaw Serigne Afia nekk maamu moom ah xëy na rabbana wala kalam du ci mën na ko wax mën na ko ñàkk a wax waaye li li wér daal mooy nekk na ci ginnaawam nekk maamu moom kàbbar ci ginnaawam ñépp jóg kàbbar ànd ak ku tedd gi bi ñu jullee ba sëlmal nag. ci la ko dénk li mu koy dénk fedd li ko bis bi mu gën a jege boromam kon suñuy màggal lu mel noonu tey dafa naa yow ëllëg bu ñu génnee sa dossier ne la yëral nga yër gis ne dangaa waxoon ak Moustapha Mbacké ne ko ndax am ngeen ay bâche ma ne la sët di macha allah jàmbaar lañ toppatoo nañ lépp waaye dolli ñu benn bâche nga ne ndax soxla ngeen turbine ma ne la comme jàmp na boo ñu wutalee estrade rek xëy na daañu ci mën a jàpp ba beneen yoon ñu wéy loo ma laaj ma ne la am na fi nga def loolu def leneen kayit woowu buñ la ko génneelee ëllëg amul fenn fooy mën a am jëf ju gën a asri ji gën koo leer ngay wuteeg man mi nga xam ne nag la la la waxkat ba doon wax rek ratatat rek mën naa am du ci def dara loolu rek mooy li ci nekk kon ñu delluwaat ci rek ci li ñu fi indi bàyyi ñu fi. te Sëriñ Tuubaa waxoon ñu ne kenn kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waaye def boppam kon defe naa soññe bi ngir ñu bañ a jël donte jël nañ ko ñu baal ñu li jot jël ci waxtu kilifa yi waaye ngir ñu bañ a gën a guddal ndax xam naa ñu mel ni Serigne Fallou Serigne Modou ci li ñu nekk. ak yeneen kilifa yi gën a sori ñu bàyyi ko Darou Salam waaye administration ñoom xam nañu xam naa ñoom it xam naa ci li ñu nekk ngir ñu bañ a guddal li ñu fi indi daal ñun ñëpp xam nañu dee moom jërëtul ñu ciy waar kenn kenn kenn ku ne ci nit ñi xeetu tranga bu ne am na ko xëy dee ku ne ci nit ñi xeetu troxtaane ju ne dal na ko mu xëy dee kon ku mu mën a doon ci nit ñi loo rafet rafet le jëmm matériel ay soxna ay kër ba yépp daj bis dafay jot ni ko sëñ bay jaxate jo wax ñu xëy jël la dénk la suuf am na nu mu koy waxee ca waye naa loolu jëm-jëmee kaw itam rek da ngay xëy rek ne cëng fi suuf loolu foofu la yëf yi yem lii xew ci àdduna gis ngeen ko bis bu ne mu ngi jàll ci télévision yi néew yaa ngi leen di romb jëm Touba nit ñaa ngay lab ca géej ga ñii ngi lakk ñii ngi accidenté problème bu nekk mi ngi am te dalul ci kenn ku may ci nit léegi nit nag moo war a xam ne jaamu yàlla moo taxoon yàlla bind ko ëllëg dafay def compte rendu ci boromam fii nga jaaroon fan yi nga fi def lii nga fi def sag pay nii fii la leen sëriñ bi woo di wax ne sëriñ Afia fii la nekkoon moo taxoon mu fare sëriñ Touba fii mu ko fare ndax lii sëriñ Touba am ba jox ko ci lii mu ko jox lu sëriñ Touba am ci la ko jële muy diine lislaam kon nag ñu delluwaat jaajuwaat laxasaayuwaat takkaat suñuy ndigg ñun taalibe yi ci ñiñ ko war a wax yéen soxna yi itam soxna yi rek yéen a xam ay soxna ngeen bàyyi bàjjen ngeen bàyyi yaay ngeen ak lu ngeen mën a doon soxna yi rek na ngeen bàyyi xel ne jigéen ñi moom coow li lu àdduna yàgg-yàgg ci ron góor ñi képp lañ mën a nekk amul geneen ron guñ mën a nekk arrijaalu xawaamoona ala nisaa jigéen ñi faw góor ñay nekk ci seen kaw loolu yàlla dogal na ko ba noppi leneen mënatul am am na àq yu war ci seen diggante ñi ci nekk ci néegu sëy sëriñ bi nee na nañu ko respecté bàyyi ko xel ku ko ci respecté wut bàyyi woo ko xel itam séy na la neexee am la la neex ëllëg mënul nekk jamais mënul nekk ah xëy na donte dañ koy wax génn ñu poñe ñu itam nañ ko war a ndigalu sëriñ bi la séy na la neex am la nga neex am la la neex sëriñ bi nee na mënta am ahadis ya bari na ayatul xuraan yi bari na léeb yi bari na cax yi bari na waaye suñu mag ñi dañoo noppaloon ci lu bare bare bari ñu tënk ko ci ñaari bar xam naa ne maa ngi maa ngi koy wàcc di ko yéegalaat rek waaye defe naa ne euh, xaw naa ko mën a wàcc fii ndax moom ah déet na yëg sëñ Cheikh mi ngi bëgg a yàgg <laughs> kay mën naa wàcc fii ndax li tax mën na fee wàcc sëñ Fallou yéen moom waaw loolu da ñu bindaloon walaw kalimate yi da lañ ñu bindaloon ci ñaaxe bi